nafsuhu boppam xam tan cant kasiran guddi aji buri keroog la ñu si dal haaji baaba bi sama borom tàllalee juróom-ñaari asamaan yi comme nan la ko soob yàlla ci boppam sii gër na alhamdulilahi rabbil alamin lim boo xam ne amul benn waliyu wala xutbu wala labdaal wala lawta wala nëjbaawu wala nuqbaawu wala benn xaarifina billahi boo xam sa xam-xam xàgg na ci nga xam bi yàlla sii gër baatu alhamdulilahi rabbil alamin ngir santee ko borom ngir santee ko moom la leen xam ne sant na rabbal wara buur bi nii bi nafsu woo boppam ci baatu alhamdulilahi rabbil alamin hamdan cant kasiiran ko di aji mbëri xam ne de sant na it rabbal wara buur bi nii bi heureusement ñañ waa xasamaan li kisri taxa ji mi ngir sëppri topp yàlla ñu ne ko Seydi El Hadji Baba xanaa yow li yàlla bind lépp ku ñu bëgg nekk ndax yow wax ñu ne Seydina Muhammad ci siñ bii bii di xaala bu mul ci bi ko jeexalee dugg xaala mu malakoot bi mu ko jeexalee dugg xaala mu jabaroot bi mu ko jeexalee dugg xaala mu lëwri bi mu ko jeexalee dugg xaala mu laawoo bi ko jeexalee dugg xaala mu xaawoo bi mu ko jeexalee dugg kurtiyu bi mu ko jeexalee dugg xaas bi ko jeexalee xool mu juróom-ñaar fukki junni xam ne yaa ngi wax ne benn bii bu nekk fi mu dalee ak fi mu xem su ko ko liiru ba doon naaw dana am ci bi juróom-ñaar fukki junni ak caati asan su jeexalee pays bi diggante pays bu nekk ak morom su bëgg liiru ba doonaa dana am ci diggante bi juróom-ñaar fukki junne ak caataas bi caati asal yi xanaa si del xaaji baabu ndax li yàlla bind lépp ku ñu bëgg nettali mu ne ñu laa yahlamu ahadun adada xalqillaahi laa yahlamu xalqillaahi illaa rabbul alamin ma ci doon barkelu rek waaye laa yahla moo xamut ahadun kenn hatta xalqa ahina ma bindee fi yàlla yi hatta sayyidina Muhammad mi nga xam ne muy sëmtul maari bi nekk alwaasitatu bayna llaahi wal baraaya te it maa baax na fi xel ne xelul riyaati sax baax na ci xam li ma fi yàlla bind laa yahla moo xamut xalqa laahi bindee fi yàlla yi illaa rabbul alamin dara mu leen bindee keroog ne lim gi mo lim ko nak patal ni ñi himu ji mo sax mané na gaw law la ci tallé bu ko ma gaw mu yak ko fi yalla yi mo tax mo ne fataba rasulahu tadul khaliqina tabarak rabbuna ya kasbata salat ba tabarak yàlla na barkeel allahu yàlla ahsanul xaaliqiin gën jaare bi di bindiis tabarak barkeel na rabbuna borom sunu yaa kasratal xaalami seen alxaaji baabu doone ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaa kasratal xaalami hoone murid bi di si mën alxaaji baabu ndaw mu ne nag si Seydina Muhammad jeexalee juróom-ñaar fukki junni bii yooyu la xam nga ci benn bii bu ñuy wax taw ko taxadar garab li ñu fi dal haaji baabu ndaw ne taw ko taxadar doomu aadama ma ne su koy nii doon foofa ko nag rëbbu وسلم قام غير قوم أحد من البرية قد كافة العالمين neena bi ko sama borom xëccee sidratil muntaha ci léeri boppam bu yonent rombu kursiw rombu xaras xool ci juróom-ñaar fukki junni bi yooyu mu bi mu jeexalee ñaar fukki junni bi yooyu nag la xam ci benn bi bu ñuy wax tawkul axdar sama borom yor ko benn malayika bu ñuy wax raf gis nga gi Muhammad jiiru dundam benn yoon la mosul jiit ba teppale ko sago mooy keroog bu duggee ci raf ñu ne ko gees mu ñu xamu leen lu ko taxoon na diit mi Muhammad ci buntu Kaaba ga xotteeg moom juróom-ñaari asamaan yi dem ba ci mënuñu xal buraax gaawaayam ba foo xel ma nekk gaawee waaye keroog ko na fu xel ma nekk bët ba dal fa fu bët ba dal weewa dal fa te ne ñu xal buraax lu moo naaw ci ñetti waxtu raf-raf ci ñetti seconde la koy jiit moo tax ci Seydina Muhammad duggee ci alquran ci raf raf ci del haaji baabu ndaw nee ne di Muhammad dëbb diit ba lépp ne xëdd na dafay sama borom rab bi ci kàllaama boppam ni doole ko kàllaama sii di mu bëggal ci diir mu tiim Seydina Muhammad hatta wasala ma qaama la yaqumu ahad minal bariyati kul min kaafatil halak ci del haaji baabu ndaw ne raf raf ni dem ak Seydina Muhammad bu yeneen doo xam ne bii boo xam ne ku yàlla bind ma fi fay taxaw. minal bëri yi di ji bi jëf yow pour lu waxal la rajo min kaabu ne laa ngi moo leen di yàlla bind naa ko rajo baabu ndaw say rajo. ñu ne ko si rajo baabu ndaw ana lu ne foofa mu ne waaye ak garaamata la في ذلك المقام ويا سعادة من أجل محمدا ويا سعادة من أجل هذا المقام جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا في دعاء المحمود أحسنت وبلغت قل سيادتنا وأعطني الدين تبارك الله

الحمد لله الذي أنار الكون بتلعبي سيد الوجود وعالم السدود سيدنا محمد الفاتح الخاتم وصل اللهم على آسى النبي الكريم سيد الوجود ونصرة الأكوان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آله وأصحابه الهداة لقر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وبرسخ المعلوم مولاي أبي العباس أحمد التجاني وعن سائر خلفائه ومقدميه وأهل طريقته أجمعين asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi toppe yi fi dëkk ak ñu fi nekk ñu ngi lay nuyu nuyoo nga xam ne moom la ñu yàlla tànnal mu jógee ci moom di delluwaat ci moom ñi koy waajalee suñu aljana ëllëg muy jàmm yàlla ak yërmandeeg yàlla ak barkeb yàlla yàlla na ko yàlla wàcce ci seen kaw jëmm yu tedd yi ak mboolem koy dégg suñu kàddu waaye wàcce waale ko ci suñu kaw jëmm yi yëpp tamit tabarakallahu di julli sëlmal sang-sang yi Seydina Muhammad bi nga xam ne suñu doon moom dara du leer ci àdduna bi moo leeral àdduna moo ubbi la ñu tëjoon waaye moom moo tax ñu jiitu ñu ngi julli si moom di sëlmal ci moom waaye di ñaan yàlla sunu borom nag moom dañ di ràng garaat Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sëriñ bi nga xam ne moo ñu je moo ñu jokkale ak yoonu yàlla waa nekk bi yëpp ci turu borom dëkk bi ak notable yi dëkkee dëkk bi yëpp beral nuyoo imam bi Baik di nuyu bu di sargal di tatagal di yëkkati di ñaaraama di ñaanal sunu sëriñ sunu wayjur sunu doomu bañat seex abubakarin daw alaaji abubakarin daw ayadahullahu wa nasara ñu ngi ñaan yàlla sunu barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moom mi nga xam ne tiitar la ci képp ku bëgg lu baax ku bëgg lu baax rek rajo Babacar tiitar la ci yow ku bëgg yàlla tiitar la ci yow ku bëgg yonent yàlla Muhammad tiitar la ci yow waaye ku bëgg Cheikh Ahmad Tidiane Chérif waaye tiitar la ci yow ku bëgg mboolem nit jekk tiital na ci yow kon kooku ñu ñaan yàlla suñu borom waaye ñëpp fii yokkal ñu fanam yokkal ñu wéram waaye yokkal ñu ijaabam waaye yokkal ñu dem xaboonam boobaa mooy njëriñ bi dund loolu tamit nekk muuram nekk suñu muur yàlla mën na ko na ko yàlla ko yàlla def bu ko defee bi xam ne mooy borom jataay bi tamit bi nga xam ne moo waral wax moo waral jataay bi ñu koy nuyu bu mu tudd la Abdourahmane Cissé fa tabarakallah ñu ngi koy di ko ziar di nuyu sama bàyyi bi ñu toogal nii euh, nga xam ne boo ko gisee rek nga xam ne tabarakallah am na lu ñu def ci moom lay nuyu jële ziar si tegaar yi fa tabarakallah axsanul maa ngi tooñ léegi Cissé Cissé man ne xaw ma woon ne Cissé am na lu muy lekk ba bay desal am bay joxaat keneen kuy lekk bay desal ah ay wax dëgg yàlla yaakaaroon moo ko waaye nag wax dëgg ba ngay lekkee ba desal tamit ba ngay lekkee ba sol des na ba nit ñi lekk ci ba des tabarakallah yàlla leen yi macha allah te di nuyu nag sama doomu bopp Mahamad Abdullah ak rakkam ko bokkal yëpp di nuyu tamit Babacar Ndaw di ko di koy ñaanal tuut rek dana bokk ci milliard milliardaire Seydi Cheikh Mara Tidiane Sëriñ waaye di sant yàlla nah, di sama jarbaat bay daam ndax sama digganteeg sëriñ bi su jokkaloo gën ah liggéey bi ngay def tuutiwul ko ndax yaa ngi siiwal yàlla yaa ngi siiwal yoon yàlla yaa ngi siiwal seen sax ci jàmm chérif ak boole bi ñu demoon da leen di siiwal ci àdduna bi fàpp loolu yàlla na ko yàlla siiwalee jaay na bi naan muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu ñu gërëm nag baax sama rakk bu baax bi muy Ibou Diakher Ibrahima tabarakallahu rafet na ne Moustapha kenn du moom xoolal rek li ko yàlla terale xoolal li ko yàlla terale tey rek na ko waajal waa Taif ñoo waral ñoo waral li waa Taif ñoo waral si xam nga loolu dafa nekk mag li xaj Malick dafa nekk mag fukki at ak ñett di leen woo ci benn baat ni laa ilaha illallah wa anna rasulullah ñi lan boo leen ñu di ko te xam nga dañ ne gënoon na lool ak wàllu at la wala aswadaani ak ñeer ne nag comme sama bàyyi ne woon kaar ma dem nga kër de mu dem kër de woo leen faale wuñu ko weeru yàlla bu xëy di leen sant ñu boole ko ay xaj ak i dox ñu koy jox ay xeex ndeysaan ba mu daal xam. moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daal ndeysaan nee nañ Seydina Aliou Sall bi nga xam ne moom la moom la àndaloon mooy fomp deret ñu naan sëy bi na nga fomp deret bi ndax dara ji suy laal suuf rek suy laal suuf yàlla def lu ko xam def Seydina Muhammad bu mu yoroon bi mu yoroon yëpp day fal jibril ni tëb ne ko maa ngi lay nuyu sa borom bi nga lay nuyu mu ne su fekkee joxe nga ordre rek ñaari meer yi tiim saa ay dund am moom moo ko jëlee léegi jox mu jëm sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca ngor ga ak ca baax ga ak ca lewet ga mu ne ëpp naa def fa innahum qawmun la ya'lamun ixtir li qawmin innahum la ya'lamun يكذب لقومه فإنهم لا يعلمون تقلد इब्राहिम बिल्कुल लायल لا ने बोलो को मोफेल مخير दोरो ñaan كان do yi arum jinni asbu ta'tu qawli wa qila qila ñaan nga di xam nga ñaan li muy jëfé man moma dal illam takku khabana na ñe fala Allah akbar bu ko garaw yàlla ne ko pour nga xam ne meruma dinaa la évité asamaan bi doon ñaar loolu moo waral gàttaay bi dëgg moo waral islam wal muharram allahu akbar kon jërëjëf am lay wax ne firnde bi des ba mu demee ba xam li ci kàttanu yàlla yàlla def na ko nuyoo bu bëgg a signé daal yàlla ne ko non ñëwal ko say daal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ne nag maa ngi gis sama yàq bi sama yàq yi sama sëriñ yi sama ñuq bi ni muy dawee maa ngi koy gis sama yaram ndax leer yàlla subhanahu wa taala yàlla na maa ko dund yow Muhammad inna xadab inna rahmati sabaqat xadabi nee na loolu la ko doon jege si ma yow Muhammad jege si ma yow Muhammad ndax sama mer sama mer daa ko fi yow sama yërmande rek moo nekk sama sama sama yërmande jiw na yàgg moo tax jiw صحة